Film Production abonné <laughs> yëkkati yëkkati bu leen ko nuyoo bu leen ko soxla nii la nii la nii la

خالد يار ما شاء الله ما شاء الله ديت الإبريزة الله سرنداري بيجنن وطنن ما شاء الله ما شاء الله سرنداري كلام مسمي والله سنغال سنغال تكرم كيفا تكرم تيو يو تكرم سرنداري تكرم تكرم كلام مسمي نبيل نبيل سرنداري اللي يدعي من نتمت ñi ngi góorgóorlu nekk ci ruq yi di liggéey ba tey yàlla jox leen ndam lu rëy lii gàccal ne képp kuy noonu alquran allahu akbar takbir takbir Lan. Maşallah. Maşallah. Maşallah maşallah. jërëjëf. ah Cheikh Birame Mangane. félicitations. félicitations. aywa si ma ñu ngi leen di ziar baax leen doge macha allah. macha allah macha allah. koo gën a. ahlan ahlan macha allah macha allah. Ah. ما شاء الله اهلا ما شاء الله يا اهل القران خمسين آه. الرحمن الرحمن pour audition. Actif. cloche de notification. SEM. gerekçe